yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf Pierre Tama bu Boubane Ousseynou jàll ak Eugène Mingo di ñetti soldaari Sénégal yi faatu keroog ca Mali l'Observateur xëy na seeti seeni mbokk li yéenekaay bi mi ngi ñuy baaxe ay xibaar ci di mag ci soldaar ba woon Ousseynou Diallo mi ngi wax ci journal bi ne rakkam Ousseynou Diallo gisoon na ak faatom ciy gént ne woote woon moom di ko rapatrier ci réew mi seen baay di Abdoulaye Diallo di xamal wàll observateur ne doom ju sori woon lool ci moom moo dem yéeneem yépp moo ne woon nu mu mën a tabaxee kër ba dugal ñu ci bàyyi na fi ñaari doom yoo xam ne kenn ki juróom benn weer la am Eugène mi ngi ko bokk moom ci ñetti soldaar yi faatu l'observateur nee nañu ay mbokkam nee nañ bi mu takkee jabar yàggul ci li ko benn xaritam bindal ci Facebook bi bi mu faatoo ci lañ ko xame ki ci des di Pierre Tama Boubane soxna si mu fi bàyyi di Toussaint Takki Boubane nee na wàll jëkkëram ji dem bàyyi na ci ginnaawam ab liir bu am ñaari semaine boo xam ne du ko mës gis ñoom ñetti soldaar yooyee la ñu doon xeex ba des ci di jàmm ci réew Mali jàmm joojee bokk na ci li gën a fës ci kàddu yu yëkkati ca cérémonie officielle bu woote mam Seydina Limaamu Laay bi les économies muy maam Libaas Laay ma fa teewaloon xalifa général des Layènes di Seydina Issa Thiaw Laay mi jiite comité d'organisation bu appel bi ak ministre intérieur Antoine Diome ñoom ñëpp àndandoo démb ñaawlu ñi bëgg a xajamal jàmmi mi Libaas Laay ci xët mu njëkk Vox Populi mu fay wax ne jaam bi yàlla sunu borom àndal mooy jaam bi jëfe jàmm diggam ak moroomu jaamam ministre intérieur Antoine Diome dolli ci ne bi maam Libaas Laay di jàngale ak a wote jàmm booba kenn waxul waxi Gandhi kenn waxul waxi Martin Luther King Soleil national bind na yoof wane nañu yoonu jàmm lëkkute na ko boole ci kit ñaawlu ni ñuy xuttee wur may tarixa yi ci réew mi ginnaaw Touba Tiwaawoon ak Medina Baay yéenekaay bi ne a wormaal tarixa mi journal La askan wi ñu jëmbat jàmbote ko suuxat boole cekkit jox kilifa këri diine yi cër bi ñu moom ci réew mi réew mi da doon dànkaafu ak di findu ñi bëgg ko wax ca Yoff keroog altine ma mooy Abdoulaye Diouf Sarr journal bi laaj lu ndax du defet électoral bi woon ci élection yi weesu moo ko topp ba léegi léegi nag nañu dem dem ci libération mi xëy dem ca Dakar Naaf nee nañu dégg nañu fan yi yëpp ay prestataire di ay liggéeykat yu nekk ca Dakar Naaf yuy wax ne dañoo dégg ne naruñu renouveler contrat de cession bi ñu signé woon atum 1999 te loolee bu amee ñu bari ci ñoom danañu ñàkk seenub liggéey libération nee nañu loolee ñuy wax amul mbir yi demeewul noonee amul benn liggéeykat bu nekk ca Dakar Naaf boo xam ne bu ñu renouveler contrat bi da ñàkk sa liggéey li fa am yéenekaay bi nee nañu moo di dañoo gis ne société portugaise bi ñu séqaloon contrat bi ñaar bu Sénégal jaaree ko ci ñaari leetar yu ministre des finances ak budget Mamadou Moustapha Ba def moo dakkal bambulaa ga portugais si nekkee woon naaf ñaar fukkeet ak juróom yéenekaay bi nañu ci atum ci la waa Cour des comptes defoonub rapport doon jéebaane xeeti contrat bi dox ci diggante LISNAF di portugais si ak état bu Sénégal te am na audit bu ñu fa defoon bu ko njëkkoon a feeñal politique bi feeñ na fës na lool ci yéenekaay yu bari ñu